alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. feetu bi président bi nga xam ne mooy Ahmed Aïdjo ca Cameroun fa lañ defee gàmm gu réy gi àndoon ak Baba Lamine yaakaar naa ñu bari gis nañ ko lu doy kooku noonu moo kapase président boobu moom mook Senghor mii wan ko ne ko nguur lay dox jot ci jox ko ci taalibe mii soo boo moytu ko. bàyyi di dox intégration africain avion bi ne cëpp ci fi nga xam ne fii mooy Yaoundé président ba joxe ordre ne bu mu dugg bàyyi muuñ mu xaddam yëpp doo ñëw mu jëflanteek ñoom li mu jëflanteet daal di rey naa leen waaye moom bés dana ñëw mu soxla Sénégal mu am lum tawat yóbbu ko France lay xew-xew mu joxe nguur ga ñëw bu ko jotaat ñu ne ko doo fi dugg yow yaa fi du dugg bàyyi moom dana dugg ndax Baba Lamine dugg na fa dugg boo xam ne ren moom président boobu musu faa dugg aéroport bi yépp a taxaw la nga xam ne lii mooy conference internationale ba biig laa tàggook ñoom ñëwoon nañ ci gàmmu gi fi mu nekk nii Cameroun tànn na leen ne lépp lu ñuy defati ci lislaam taalibe bàyyi ñoo koy jiit laylatu xadar bii rek juróom-ñaari nit lañ daggal bii ñu ñëw biig yooyu bii lañ tàggoo démb indaale nañ diplôme boo xam ne mboolem ko bokkoon ca congrès ba dama ko fàttee indi woon leen ko indi haale nañ ko loolu nag li ko li maqaama bi li li fooraay bi fi mu am mooy ki waxoon ne bàyyi du dugg actuellement bañ ko génnee fu mu dem ñu ne ko doo dugg Sénégal rek ko wax bismillah te bàyyi noonu na ko da nga soxla ji Sénégal mu dee ñu sul ko yoof mbokk yaa ngi négocier pour yax yi dem martaba bi bañ euh, stade bañ ko tuddee woon Ahmed Aïdjo fa lañ defee gàmmu international li Nigeria di li li Elimane ratibu Nigeria la am Cameroon fa la al fa la ko fa juma samedi la ko ba bala desut Nigeria la ken Nigeria lañ gamu kon intégration africain dafa nekk boo xam ne doole ji dafa bëri caat am na ñoo xam ne junney kilomètre ak juróomi téeméer lañ dox ñëw ci gàmmu Cameroun googu bañ agsee am na ci koo xam ne seen xalifa bi bi muy taxaw di sadd abyaat yi bi mu agsee ci mata dafanuuni fi turaabi taxaddasoo baatu suul ci suuf moo ko jooyloo yëngal lépp te bàyyi ma su faa teg tànkam